yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi seen émission ëttu jàngkatu xasida yi ngeen di ci ànd ak Sëriñ Ay Xuma te ji ci àjjuma ji mun na ma dalal jàngkat bu ñu ràññi ci njàng mu wér sëriñ bàcc sàmb ak waxtaankat bu gëstu lu yaatu ci xasiday ku tedd ki sëriñ Moustapha Lo ñu na ma waxtaane lépp lu ñeel njàngum xasida jariñal xasida émission bu am solo ci Touba Argentine TV tey ji ci àjuma ji lay doon 21h di aaru Argentine yéen ñi ñuy seetaan ngeen mën a indi seeni xalaat ci émission boobu bile ci numéro yi gis muy affiché raye ba xuma ganam sëriñ bàcci sàmbu jàngkat bu ñu ràññi sëriñ Moustapha Lo géwale gëstoom bu baax yi xasitey ku tedd gi Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba mun na ma doon émission bu am solo ci Touba Argentine TV 21h 19h bu Argentine وعند أهل التقى والعلم والرسد